chaque année ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk njiitu association bii di finance dañuy am partenaire boo xamante ni day ñëw dimbali ñu ci wàllum fourniture wala leneen ak leneen. c'est la première fois mu nekk ndaje bu rëy parce que ak nu mu fa mënti demee. buñ ko daan def dañ ko daan def ci anam yoo xamante ni dema fa noonu mais tey ni ko directeur monsieur mbay defee tey tax na képp kuy albinos yëg ci boppam parce que albinos yu nekk Dakar buñ ko yëgee du ñëw ñëw ndax dañ ko daan yemale ci benn volet rek mais tey dañ ko def niveau national te c'est pas la fois moom mu def ko bii mooy mën naa ne damay fàtte sax ñaata yoon la

yàlla xam na ni jour boobu invité wuñ ma sax damay wàcc di génn laajte lu fi xew jour boobu ci laa xamante Amadou Ali mu ne ma albinos yi ñoo fi xewle ma ñëw jaxasoog ñoom man jàpp ma ni ndimbal la bu ñuy joxe dama jàpp ni nag échange de bons procédés social la maanaam dafa am benn affaire fu ñuy jàppe indi ko mu am fu mu jëm am njëriñ lu mu fa am njëriñ loolu nak lutax tay tey mu am sens moy dafa jëm ci yar dafa jëm ci éducation dafa jëm ci formation dafa jëm ci xalé yi nga xamanteni dañ leena wara jox chance pour que ëllëg fils doomu ñépp di jaar ba tedd ba tekki comme on le dit ñu jaar fa ma wax ni plaidoyer bi nga xamanteni bëgg na man bëgg naa ko porter tay en tant que ambassadeur défenseur des albinos c'est la gratuité du crème solaire des crèmes solaires crème solaire bi dafa mel ni tey yor sida ni ñu leen fexe ba les antirétroviraux gratuits Non, nous ñu war a fexe ba crème solaire gratuit ci ñi nga xamanteni, ni di albinos yi manam puune yi li ko waral moy lan biñu ñu calcul albinos yëpp bu len leen ku ci li ngay soxla ci crème solaire te mu diis ci ñom ndax bu ñuy dox ci nak bi dañ koy soxla ak lunettes yi bima ko totaliser ci budget Sénégal lepp buñ ko joxone gratuitement day nek 9 milliards. je pense que 9 milliards sur presque 4000 milliards yi nga xamante moy budget Sénégal lu war mëna nek la da fay dafay baax yenn saay ñu jël politique tek jël farfarloo teg fàtte remaniement fàtte kou falu fàtte fusion fàtte lepp te wax li nga xamanteni mo jëm ci askan wi lolu moy sensu li ñu indi tay ñun li dépendre ci ñun muy walu formation ak métier ngeen sélectionnel ñu xalé yi nga xamanteni ni jànguñu wala ñi nga xamanteni ni amuñu leneen li nga xamanteni ni mën nañ ko def ñu wutal leen métier ci bi muy tel ñeneen ñi ñu encadrer leen ba ñu mëna def seen cursus normalement. le président de la république son excellence Macky Sall parce que gis nañu limu def ci philosophie sociaux gis na lim leen defal carte d'égalité des chances gis nañu également lim leen defal ci bourse familiale mais dañu bëgg ñu def une dans la sélection ñi ñuy jël fonction publique ñu am un quota réservé au handicap aux gens qui vivent avec un handicap en général mais particulièrement les, les albinos et pourquoi pas ñu dem ba nga au niveau de la représentation nationale li euh, les les les albinos vont être représentés.